jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com am nañu mbégte ànd ak yéen ci invité de la rédaction ñu dikkaat nag tey ji nag ñu fas yéene dalal ki nga xam ne nag moo di Serigne Moustapha Thiam jiite association bi nga xam ne moom la ñuy wax handicapé ca kanam association beek li nga xam ne ci la ñuy liggéey ak tolluwaay bi loolee lépp dinañu ko waxtaane ci biir bi la jotaay xam naa dañu koy bàyyi rek mu nuyoo Serigne Moustapha maa ngi lay nuyu la nga nuyoo ko ñi lay seetaan ci 24actu point nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant. Mm-hmm. di leen ñaanal jàmm ak xéewal di leen ñaanal ngërëmal yàlla. Mm-hmm. ngërëmal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. ngërëmal Cheikhul Khadim di leen ñaanal mujj gu rafet. yal nañu ko yàlla defal defal ko mbooloo mi julli ci kàttanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi nuyu waa dëkk bi yëpp. di nuyu Ousseynou yow it maa ngi lay nuyu la ziar bu baax di la sant si déplacement bi. alors euh, sëñ Moustapha wax naa ko léegi euh, a lan nga ñuy wax. waa association handicap ca kanam. Mhm. kuréel la boo xamante ni. Mhm. dafa tënku ci diine lislaam euh, ñu gis benn aaya bu am solo boo xam suñu borom mhm. daf ciy boole jullit yëpp ñu booloo tënku ci diine lislaam nekk benn muy inamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum wattaqullaha laallakum turhamun ñu gis ni ay personnes en situation de handicap lañu. Euh, olof Njaay wax ni gumba tal na leneen lu dul tëbiteen te wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun suñu hmm. borom bi muy bind di ñu indi fii ci àdduna hmm. pour jaamu yàlla kese hmm. moo taxoon mu indi ñu fii ñu ni léegi nan booloo nekk benn ñun personne handicapé yi ñu jàppante jël nattu bi nga xam suñu borom teg teg nañu ko ñu def ko bànneex bànneex bi nag mooy ñu ànd booloo nekk benn di jàppalante fa aslihu bayna axawaykum boobu moom mooy objectifu handicap ca kanam. Mhm. loolu mooy objectif bi xam naa dinañ ci dikk ci ay yaatal mais bala ñoo egg ci association beeg ni mu taxawee ak seen i yëngu-yëngu. gis nañu ni euh, réewum Sénégal ñi nga xam ne dañuy dund ak handicapé souvent euh, yéen ñu koy dundee ban nan ngeen di dundee ak handicap avant ñuy dugg ci yenn détails yi. waaw ni ñuy dunde handicap bi dafa mel na dafa am lu état créé muy association ñu nekk ci biir association yi ni ma mën a misaale association yi mooy état créé dugal la ci benn koñ ni la toogal ci koñ boobu bul bouger dinaa la fa fekk ak ay ndimbal waaye ñun bu ñu toogee ci biir koñ boobu daanaka du ñu xam. Hmm. ñu am beneen association bu bees. Hmm. boo man système bi ma génnee système bu bees la. maanaam association bi association nationale la. Hmm. au lieu association la tur la. mais dañu génn. ci biti. Euh, jëli handicapé yi nekk Sénégal yëpp. ñu boole leen ñu tënk ci benn buum. su ko defee. ñu mën a xeexandoo sunu àq ak suñu yelleef mm-hmm. ndax gis nañ ni bu ñu toogee ci biir association yi ñun ñooy daje si association yi mm-hmm. mais du valide yi ñoom ñoo fay daje ak ñun ñun handicapé rek ñoo fay daje su ko defee li nu war a xam dëgg dëgg dëgg ci jafe-jafe handicapé yi duñ ko xam mm. looloo tax ñun ñu génn créer benn association bu tudd handicap ca kanam mais en même ay mm. valide aussi ñu ngi ci biir ngir ñu gën a xam mm. ak yelleef handicapé yi mm-hmm. ba seen aajo di mën faju bu baax a baax ok googi kuréel kañ ngeen ko taxawal euh, kuréel boobu ñoo ngi ko créé octobre 2016 2016 waaw mais dañ ko créé suñu borom nag def ci tawfeex ndax comme dañ ko tënk ci diin l'islam mbooleem ko ko dégg te l'islam ñor la da ngay di ñëw bokk ci biir diina ji mais macha allah 2013. ak léegi. am nañ fi plus de deux cent et quelques membres yoo xam xamante ni ñoo ngi ci biir association bi. chaque fin de mois ñuy def seen participation. Hmm, lan mooy yëngu-yëngu association euh, association bi lan mooy ay yëngu-yëngoom ci Sénégal. dox nga ko léegi ne jàppale ñi nga xam ne ñooy handicapé yi. Hmm. waaw yëngu bi euh, handicapé bi si boppam. Hmm. dafa war a jóg dimbali moroomu handicapé. li ni dimbalante mooy chaque fin du kenn ku si nekk si ñun. Mhm. di nga cotiser 1000 francs xam plus de cent et quelques personnes. bu kenn ku si nekk cotiser 1000 francs mhm. chaque fin du mois dinañ am. Mhm. plus de 200000. dañ koy dajale nag ba mu am un an. y a des bonnes volontés aussi yoo xamante ni ñoo ngi ci biir ay valides yoo xamante ni. suñu borom dimbali na leen ba ñëw nañ bokk ci liggéey bi xaas boobu yëpp dañ koy dajale. chaque année dinañ daje ci benn région. Euh, dañuy def ay retrouvailles jours. Euh, deux jours yooyu dañuy am programme yu am solo. Euh, bu ñu xëyee suba li ñuy njëkk def mooy dañuy wàcc kaamil jàng alquran ñaanal Sénégal hmm. mais bis topp dañuy def don de sang hmm. ndax maye deret dafa bokk ci jaamu yàlla hmm. bu ñu defee don de ba pare xaalis bi ñu doon dajale dañ koy jël nu tànn plus de dix personnes handicapées ñu financé leen ko. Euh, ci tolloog dix mois. yoo xam du am benn intérêt. Hmm. ñoom ñu dem liggéey. c'est-à-dire du ngeen am dara lu ngeen ci teg ko voilà du na am dara lu ñu si teg. Hmm. ñu dem liggéey. Hmm. loolu aussi day wax ak handicapé bi. ça ne veut pas dire que aussi da ngay nekk handicapé. nga croiser tes bras bokk si ñi yàlla wax joxe leen. donc handicapé bi ñoo ngi koy jàngal foofu. moom muy génne di joxe. mais kan lay jox moroomu handicapé bi nga xamante ni loxoom jotul gannaawam. war ko jàppale. est-ce que loolu dina yomb bu ñu gisee ne xëy na Sénégal euh, ñu ngi la fekk sa place ngay liggéey liggéey mais xëy na bëri na handicapé yoo xam ne dañu jàpp ne dañu war a taxaw ci mbedd mi rek pour tàllal loxo est-ce que dina yomb fu ñuy jëlee li ñu cotiser pour bokk ci loolu. waaw looloo tax nag ñu jël sistème boobu. Hmm. ndax boo xoolee. 1000 hmm. francs par mois hmm. yomb na. mais bu fekkee dañ dajale plus de deux cent personnes. Mhm. ñu dajale seeni mille francs jox ko mhm. une personne handicapée boo xamante ni. Mhm. elle est loxoom jotul gannaawam ñu jox ko ko. mu dem liggéeyi. buñ ko yàggee def. ak bonne volonté yi nga xamante ni dañ koy am ak partenaires yi. bu yàggee ni nga ma fekk nii sama place may liggéey. man duñ ma jox mais ki amul liggéey moom la ñuy jox moom la ñuy jox pour que kooko soqaliku waaw mën a soqaliku mën a dem liggéey donc ñun suñu combat lool la pour mhm. wàññi mendicité bi mhm. ba mu wàññeeku amaana sax suñu borom dimbale ñu defal ñu tawfeex mhm. ba mu mën faa jaar ngeen bokk ci ñuy joxe alors euh, Sénégal lan mooy euh, situation handicapé yi fi mu toll nii lan mooy jafe-jafe yi nga xam ne dëgg-dëgg mën nañ ca teg baaram muy jafe yi nga xam ne dañ koy jànkonteel bu weesoo yalwaan beeg yu mel noonu waaw jafe-jafe bi dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ñun suñu digganteeg état suñu diggante ak état parce que. boo xoolee carte d'égalité des chances yi. ñoo ngi koy wax. léegi loolu information boobu jàll na ci Sénégal gépp ñëpp xam na ne handicapé yi am nañ ay carte égalité des chances. mais est que ñëpp jot nañ ci quand même. ñëpp jotuñu ci te même ni si jot am na si ñoo xamante ni seen bos carte la kese. Hmm. mais amul njëriñ parce que fayooguñ ci. Hmm. donc loolu moom problème mu majeur la. ci région yi nekk Sénégal yëpp. nga jàpp ne problème bi fan lay nekkee ci kan kan moo am responsabilité yi. waaw bi ko Macky Sall njëkkee wax. Hmm. moom moo taxaw ci télé bi. ni chaque personne handicapée. boo xamante ni am nga carte égalité des chances. Hmm. automatiquement di nga am bourse familiale. Hmm. di nga am mutuel de santé couverture maladie universelle. ok c'est automatique. Hmm. mais loolu bi mu ko waxee après gis nañ ni. loolu kenn appliqué wu ko. dangay gis plus de cent handicapés. yoo xam dañ naan la am naan carte. mais du ñu fayu. am nañ carte mais bu ñu demee hôpital ñu leen fii amu leen fi ñu leen di fay amu leen fi xaalis donc carte boobu day nekk benn carte boo xam comme commune carte d'identité mhm. parce que carte d'identité moo ko tane sax parce que carte d'identité ko yoree mhm. boo demee banque bëgg génne xaalis dinañ la génneel xaalis mais bii boo demee poste bëgg retirer xaalis dañ naan la amoo fi xaalis te bëri na fi ñu koy jàmbat loolu bokk ci jafe-jafe yi mhm, alors gis nañu ni tamit Sénégal dañu wax que nii dañu am ay euh, loo xam ne dernière génération te boo xoolee cest à yenn bâtiment yi wala yenn kii sóoraale wuñ ci sax handicapé yi loolu lan nga ñu ciy wax. waaw manque d'accessibilité boobu. fa dafa nekk lu doy waar. Mhm. ndax bëri na tey léegi léegi rek maa ngi ànd ak sama gars yi waa centre commercial bi. Mhm. ñu dem benn baptême san benn xarit buy ngénte. Mhm. mais bi ñuy dugg ci biir. Mhm. ma dama am problème mu dugg. da nga am problème loolu nag. Euh, esprit de dépassement boobu. dañ ko war a am. Sénégalais yi du état loolu moom du ko jiñ état kese. mais dañ koy jiñ ñëpp parce que fii dëkk jullit la. képp kuy tabax war nga sóoraale. personne en situation de handicap boo amee soxla. ba war a dugg ci biir kër gi. loolu moom du cause état kese ñëpp la. mooy ñun ay jullit lañu. dëkk bi dëkk jullit la quatre-vingt-quinze pour cent de la population mm. ay jullit lañu mm. kon war nañ fexe ba mm. suñu diggante handicap ak valide mm-hmm. ñu bañ ci sax am ay ay ay ay xel ñaar yooyu voilà ay kii handicapé la kii mm-hmm. valide la mm-hmm. ñu jàpp ne rek ñun ñëpp ay jullit lañu ñu dox doxinu jullit. voilà te mbir mi sax euh, xëy na du ci yaram bi lépp ci xel bi la parce que gis nañ ay handicapés yoo xam ne ñi ngi jàng ñi ngi am ay xam-xam. voilà ci dëkk yëpp nag ñu respecté. laaj ma centre commercial bi. Mhm. laaj ma centre commercial la woo laajte ci centre bi kay wax dëgg yàlla. Mhm. fii nii fii nii. Mhm. su ma fi tegul tànk kenn tegu ma fi tànk. parce que jàmbaar la du xool ni. je une personne en situation de handicap. handicap fii la si xel. ci xel waaw yàlla may a duñu toog croiser nos bras dañuy jóg uh-huh. di daan suñu doolee di liggéey te du duñu jóg kese di liggéey individuellement mais dañuy jóg hmm. di liggéey ensemble hmm. handicap ca kanam euh, macha allah suñu borom defal nañ tawfeex ba hmm. Mauritanie dans les quatorze régions ay élèves yu nekk université hmm. ay professeurs ay hmm. infirmières hmm. ay ñoom ñëpp ñoo ngi ci biir handicap ca kanam di liggéey liggéey yu mucc ayib di jàppalante ci wàllu social def lépp loo xamante ni rek jullit mi ngi koy seq ak moroomu jullitam ñoo ngi ciy liggéey incha allah est-ce que ñi nga xam ne mooy euh, kilifa yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bi xëy na ñu mën leen tuddee ay bonne volonté est-ce que ñoom ñu ngi dugal seen loxo ci association bi. waa loolu kilifa yi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu deme demee noonu. Mhm. xëy na dañu xamagul dëgg dëgg dëgg dëgg. Mhm. ni mu demee xam wax naa la sànq avant ñuy commencer. Mhm. Euh, ñun dañoo nekk benn association. mais à chaque fois booy xool indi handicapé yi dañu am benn idée ñoom dañuy toog beru ci association su ko defee mhm. li ñuy waxtaane ci seen biir lay yem mhm. su ko defee bon volonté bi nga xam ne dafa nekk ci biti wala autorité bi wala kilifa diine bi wala kilifa aada bi mhm. bi waroon ñëw gis du gis parce que dañuy nekk ci benn salle réunion bu ñu paree réunion génn dem si ñoon ñun système boobu dañ koo dàq dañoo génn ci biti pour wan société bi nii amul handicap mm. nul n'est parfait ah ñëpp a yem mm-hmm. ci yàlla inna akramakum indallaahi atqaakum li yàlla soxla mooy ki gën a tedd ci yéen mm-hmm. mooy ki gën a ragal yàlla ñun tam dañoo jóg na génn salle yi mm-hmm. génn bureau yi génn salle de réunion yi ñëw ci biir société bi ànd ak ñoom di liggéey bonne volonté boo xamante ni mm. bëgg nga jàppale une personne en mm. situation de handicap qui est vulnérable incha allahu rabbi boo ñëwee mun nga ànd ak ñun liggéey ci anam yu rafet voilà d'accord bu ñu waxee handicap yi tamit euh, tudd euh, bari na ay fànn mais ndaw ñi dañuy gis ne ndaw ñi nga xam ne dañuy dund ak handicap dañuy am jafe-jafe ci jàng ci leneen leneen. waaw surtout Touba. surtout Touba. ndax da gis personne handicapée boo xamante ni day am ay dix ans. mais yaayam lay àndal sax di ko yóbbu si marché bi. Mhm. di ko wutloo xaalis. donc bu amee vingt ans. Mhm. wutum xaalis rek lay nekk. lay nekk ci xelam. donc du am xam-xam. Mhm. du am xel du am dara. Mhm. loolu aussi dafa bokk ci suñu combat. suñu combat mooy xale yooyu bu ñu leen gisee. dañ leen di jël indi leen ci association bi. di leen jéem a tette. ba ñu mën a am ci luñ jàpp. Euh, pour adhérer ci association bi naka la ñuy def ku ci bëggoon adhérer par exemple. waaw xam nga adhésion bi moom dañ koo jaar ci xam nga léegi jamono dafa soppeeku. réseaux sociaux yi daanaka. yéen a ngi ci biir yéen a ngi ci réseaux sociaux yi waaw man pourquoi pas waruma mën a jóg. Mhm. boole handicapé yi nekk Sénégal yëpp ñu xamante. Mhm. surtout objectif bi xamante bi am solo. Mhm. parce que ñoo ngi siy takk ay sëy. ñoo ngi ah, ciy mayante ci biir ci biir même association ah, bi super bien. waaw ñoo ngi siy mayante ay borom kër. ñoo ngi siy mayante ay njëkke. di si demlante barki dem laa jógee conférence fële sa Thiès. boo xam dañ ñoo parrainé. conférence bi ah super donc ci biir loolu nag. dañoo tënku nekk benn ba nga xamante ni. képp ku bëgg dugg. ci groupe WhatsApp boobu ngay jaar. boo ñëwee automatiquement dañ lay ajouté. buñ la ajouté présenté la nga nga bokk adhéré wu. même y a des valides sax yoo xam ñoo ngi ci biir. Mhm. chaque fin du mois dañuy cotiser. Mhm. joxe seen cotisation ñu dajale xaalis boobu. delloo ko ci mhm. askanu handicapé yi. ok euh, wax nga ma tamit euh, liggéey yu am solo yi nga xam ne euh, association bi mi ngi koy def boobaak léegi ñaata nit ñoo xam ne dañu nekk dañoo handicapé ngeen jàppale. waa ren jàppale nañu dix personnes. ren jii rek waaw ren. Mhm. ja en le douze janvier. jàppale nañu dix personnes handicapées yoo xamante ni. Mhm. ñoo ngi leen jàppale fële sa centre Talibou Dabo. centre Talibou Dabo ñu jox leen ay financement ñu dem liggéeyi. Mhm. ñoo ngi koy fay normalement. ñu ngi fay amul benn intérêt. amul benn intérêt bu ñu fi liggéey aussi. permettre ñu am yoon boo xamante ni. handicap bi dina mën a génne loxoom. ci mendicité. voilà waaye dugal loxoom. ci daan doole. parce que ñoom képp koo gis. handicapé boo gis mu taxaw ci mbedd mi. tàllal loxo neexu ko gënalu ko neexu ko gënalu ko parce dafa diis nga jaakaarloog sa morom ne ko jox alal di la ko jox nga koy mm. tàllal loxo mm. loolu dafa diis dafa nekk lu métti métti mm-hmm. moo tax képp koo xamante ni jullit nga mm. war nga góorgóorlu di ñëw di personne handicapé yi mm-hmm. nga di leen jàppale parce que ça ne veut ni ñun dañoo wàcc sur terrain di bëgg yalwaan déedéet bëgguñu yalwaan mm-hmm. dañoo bëgg liggéey dañu bëgg liggéey te am nañu pas-pas bi bi wàcc ko fii si àdduna euh, dafa am ñu fi nekkoon a nekk hmm. mais ñoon dañ ñëwoon di yàq suuf si hmm. di tuur ay deret yàlla ni naa leen fii jële indi ñeneen hmm. indi fi aadama na aadama bi mu ko indee yàlla lan la wax si alquran yaa ulil albaabi borom xel yi borom xel yi voilà waaw wa allama aadama asmaa kullaha yàlla li mu xamal aadama xamul ko sax malaaka yi après aadama moo xamal malaaka yi li yàlla nar ci àdduna kon compétence boobu mi ngi ci doomu aadama mi ngi ci doomu aadama mi ngi ci valide kese de. Uh-huh. mi ngi ci valide mi ngi ci invalide ok. mi ngi ci handicapé mi ngi ci kudul yàlla mooy xool fu ko neex. Mm-hmm. mu dugal ko fa. Mm-hmm. bu yàlla ne wallahu yarzuqu man yashaaw. Mm-hmm. man maay wërsëgal ku ma neex. ñu sénégalais dañuy jàpp ni. wërsëg alal kese la déedéet. wërsëg xaalis. xam-xam xam-xam surtout xam-xam. surtout xam parce que mënoo am xaalis te amoo compétence. déedéet déedéet wala kon day doon xaalis boo xam dalay jay. allu àdduna amoo ko ci lu lew mhm. mais bu fekkee alal bu lew nga bëgg mhm. day tegu ci compétence mhm. te compétence boobu nag yàlla jaglewu ko ku ñuul bàyyi ko xees wala kii wala kaa bàyyi ko ñuul jaglewu ko ku am tànk wala ku amul tànk da ko séddale ku ko neex la koy jox te mi ngi ci ñun am nañ ko bu baax te xam nañ ko ok euh, lan mooy seen programme yi ngeen dëgmal ci seen euh, association bi ak euh, programme bi ñu dëgmal mooy xam nga daaw Sénégal yëpp handicapé yi nekk Sénégal yëpp bokkoon ci dañoo ñëw mhm. retrouvé wu fii ci Sénégal mhm. Touba Touba mhm. ñu am fi deux jours def ay programme yu mucc ayib mais ren danoo demoon Dakar mais déwén incha allah dañuy jëlaat beneen région bu ñu jëlaatee beneen région dinañ fa def don de sang te loolu dafa am solo dañuy participer ci suñu développement réew Euh, bu ñu participer si suñu développement réew ba pare hmm. incha allahu rabbi dañuy jël ay programme yu bëri hmm. bu ñu mayee deret ba pare dinañ jàng al alquran hmm. dinañ financer ay personnes yeneen personnes encore yoo xam ñun ñoo leen di finance ci suñu xaalisu bopp bu leen financer ba pare dinañ def conférence boo xamante ni dañ koy def conférence religieuse waaye dinañ def handisport handicapé yi def sport mm. yëngu ci sport parce que y a des handicapés yoo xam dañuy def sport ba dem bitim réew ah tubaab yi jël leen di leen fay xaalis buy weex tàll mais bu dee Sénégal mm. dañ leen di négliger yooyu nag dafa bokk ci suñu combat ñu koy dox mu nekk lu am solo ma ci euh, nuyu sax ki nga xam ne nag euh, moo di euh, Maram Penda moom mu jiite association nangu natt bu Louga mm-hmm. bokk ci handicapé yi nekk tamit sama xarit lool mm-hmm. ñu ngi ko ci nuyu bu baax a baax mais alors léegi nag dañu wax que ni seen association bi jamono ji xam teg ngeen ko. Mhm. Euh, lan mooy coppite yi nga xam ne fas yéene ngeen koo amal ci xelu nit ñi c'est-à-dire ci sensibiliser leen wax leen que ni lii kat nekkul ci xel nangam wala ci nangam mais ci xel la liggéey bi. maanaam loolu moom esprit de dépassement. Mhm. ñu xam ni hmm. yàlla bi ñuy bind hmm. ñu ñëpp a yam hmm. fi ñu wutee rek mooy inna akramakum indallaahi atqaakum loolu wolof njaay di wax naan li nit di gën a moroomam buy sangu du ko simmi loolu rek ñun la ñuy lancé ñu xam ni boo rombee handicapé ci mbedd mi bul jàpp ni yaa ko gën bu jàpp ni yaa ko gën parce que compétence bi yàlla da koo séddale mhm. ñun loolu rek lañ bëgg lancer pour ñëpp xam ko su ñëpp xamee loolu mhm. après ñu ñëpp dinañ mën a joxante loxo mhm. parce que fa aslihu bayna axawaykum la wax waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu na ngeen ngoy ci buum yàlla bi ñëpp te bu leen teqalikoo ko te nag naa la xamal benn affaire Touba mooy deuxième ville du Sénégal moo fi ëpp handicapé avant à part Dakar ah oui Touba moo fi à moo fi ëpp handicapé mais y a des personnes vulnérables yoo xamante ni ñoo ngi ci biir. Mm. amuñu ku leen jàppale. amuñu leen jàppale amuñu mm. tey boo bëggoon dem. Mm. Euh, ci personnes yi nga xam ne dañuy jàppale handicapé yi. pour nga am accès. ci ñoom yow miy handicapé da ngay am problème. day jafe super loolu nañ ci bàyyi xel. ñu bàyyi xel ubbil ñu bunt yi. Mm-hmm. Mm-hmm. waxtaan parce que mm-hmm. am na ñoo xamante li leen tax a jóg. amuñu doole man sa man dama par personnel. aw ma doole bu ma jàppalee handicapé. mais looloo tax ma am idée. xel créer association bu mel noonu. pour mën a jàppale jàppale. d' accord les personnes mm, vulnérables. waaw justement foofu la ñuy jeexale rek mot de la fin ci euh, handicapé ca kanam. waaw handicap ca kanam moom. Mhm. dafa nekk kuréel boo xamante ni daal. Mhm. dañu bëgg yëkkati handicapé yi ñu jóg. Mhm. jëm ci kanam. ñu ñëpp ñu tolloo. même niveau. te xam ni inna akramakum indallaahi atqaakum. après ñu ñëpp bu ñu tolloo même niveau. fi ñuy xamee ki gën. yàlla lay doon te yàlla ko xam. te loolu jëf ju rafet lay doon. ak xol bu rafet wa innaka la ala xuluqil adim. yàlla taggul yonent bi ci julli. mais ci jikko yu rafet la ko la ko taggee. jikko yu rafet yooyu nag bu ñu ba niveau te bëggante mm-hmm. dinañ soppante mm-hmm. loolu moo tax ñu mm-hmm. indi handicap ca kanam pour ñëpp avancer jëm ca kanam même les valides aussi la même chose ñu lay sant di la gërëm bu baax ci teewaay bi rafet na trop parce que ba ma la ko waxee wax dëgg yàlla da nga jàpp li nga da nga bàyyi li nga jàppoon yëpp ñëw ma ci liggéey bi effectivement effectivement voilà ngi koy sant baax di ko gërëm mu nekkoon euh, Serigne Moustapha Thiam moom mi nga xam ne nag moo jiitee association bi nga xam ne moom la ñuy wax euh, handicapé ci kanam mu nekk association bu am solo boo xam ne lépp rek li ko tax a jóg muy jàppale ñi nga xam ne dañoo dund ak way laago euh, ni mu ko waxee rek ci kuréel gi képp koo xam ne valide wala invalide wala sax bonne volonté bépp boo xam ne bëgg nga jàpp ci kuréel gi mën contacter moom Serigne Moustapha euh, moom rek bu ngeen ko gisee lépp lu nga xam ne soxla ngeen ko ci fànn gu ne mel dinañ leen ci jàppale may euh, profité ci occasion bi di nuyuwaat encore une fois Maram Penda moom mi nga xam ne moom moo jiite association nangu natt bu luga nekk ko baax tamit ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm Baye moo nekkoon ci caméra bi Cheikhouna Ndiaye itam moo nekkoon tamit ci euh, genn wàll gi ci caméra bi Khady Niang moo nekk ci montage bi ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm di gërëm bu baax Awa njaay jigéenu jàmbaar di leen jox dig daje incha allah ci yeneen i jotaay jërë ngeen jëf